loolu ñoo ngi ziar baax xalifa Cheikh Moustapha Cheikh Ahmadul Muxtaar mu yàgg fi loolu te wér ak njobootu Serigne Modou Moustapha gépp waaye di ziare Serigne Abdou Serigne Cheikh Mati lay Bakke ibnu Serigne Abdoul Aziz ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di ñaan yàlla sunu boroom mu yàgg fi loolu te wér ba lam lim yéene liggéeyal maamam ak way juróom muy def ko ci sagoom ni mu ko bëggee ci barkeb Cheikhul Khadim te ànd moom di ziare mboolem. taalibe yi fi ñëw yépp rek ak fun mën a bàyyi ko waaye nuyoo boog ziar boobu buñ ci jiitalee sëñ Mour Seen mi nu dendal ak Baye Mor mi ñu dendal ak waa daayira Sëriñ Baara Mbàkke bépp rek ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur ñoom waaye di ziare sunu kilifa gu mag gi fi jóge muy Baye Cheikh Awa Balla ibnu Cheikh Mohamadou di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te wér ginnaaw loolu bu nuyoo ci tur sëñ Mour Seen ñoo ngi nuyu ki nga xam ne moo jiite daayira Serigne Touba bi ci dëkk bi muy Serigne ba Guèye ak mboolem fédération bi mu jiite ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziyaara waaye ñu may ne tuuti ak digloo rek ñu may ne tuuti ak digloo ñu yeggale tuuti rek ndax dafa mel ne jotaay bi dafa xaw a guddi waaye danoo nekk ci bis boo xamante ne bisum ñaan la bisu fàttaliku wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma bu ni fàttaliku gaa yu baax yi yërmande suñu borom day wàcc te gaa yi yàlla yi gaa yu baax yi kenn jiitu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara waaye boole ci di ñaanal ak Cheikh Sidi al Muxtaar di ñaan yàlla sunu borom yërmandeem akuk njëggalam akuk leeram yàlla na dotteku ci moom ak képp kum fa fekk ku ko fekk bay yaayomil xiyaama di ko ñaan loolu yàlla sunu borom def ko ci barkeb Cheikhul Khadim ginnaaw loolu bu nuyoo ñëpp ci turu sëñ Yakhoob ak turu sëñ Modou Sène ñoom ñi ngi biral seenu cant ci ginnaaw santu sëñ Cheikh Mati lay muy mbooleem daayira yi nga xam ne ñëw nañ ci jotaay bi te bokk ak ñoom bis bi daayirab José Sepas ci turu Serigne Moustapha Seck ak daayirab laa palaata ci turu Serigne Moustapha Jëwrin Moustapha Fall ak daayirab Baye Fall yi ci turu sëñ Assane Ngom ak daayirab Serigne Fadilu Mbacke Cheikh Mamadou faadal ci turu Serigne Fadilu Lam ak daayirab Maam Cheikh Alhaaji Malick si ci turu Serigne Modou Ba ak mboolem waa kër cheikh yi àndaloon yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak waa daayira cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci suru sëriñ Abdoulaye Ndiaye sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye ak waa kër maam cheikh Issa Dieng ci jëwriñ sëriñ Alla Diop ak waa kër sëriñ Saalihu Mbacké jëwriñ sëriñ Bamba ak daayira Moroon ci jëwriñ sëriñ Moussa Jonn ak daayira maam Thierno Ibrahima Fati ci turu maam Thierno Amar kon lii mooy daayira yi nga xam ne ñëwoon nañ ci bi jàppale ànd waa daayira Cheikh Mouhamadul Amin Baara bi fi nekk ngir jëmmal bis bi waaye lépp rek ñu teg ko ci mboolem daayira bi nga xam ne ma fédération bi nga xam ne mooy fédération bi fi nekkal Daarul Xuddus ci turu mboolem buntu këri Cheikh Moustapha yépp rek ñoo ngi jël nuyoo boobu ak ziar boobu jaarale ko ci daayira fédération bi mu jaar ci daayira sëñ Baara bi mu mboo mu matale mboolem daayira boo xam ne ñëw nga teew ci bis bi ak ñi nga xam ne dañ fee ñëw te teewalul fi daayira bi te ñëw fi ngir Serigne tubaab wala Cheikh Mouhamadou Lamine baara ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci turu jëwriñ jii di sëñ Modou Sène ak waa kër sëñ Bara gépp ak ñi nga xamante ne ñoo jëloon seen oto jox ko sëñ Bara mu jëm ci màggal gi ñu ciy jiital Serigne euh, euh, sëñ Talla Sall di ko nuyu baax di ko ziyaare moom wax dëgg yàlla ku euh, borom ku bëgg lu baax la ndax lépp loo xam ne lu jëm ci liggéeyu sëñ bi rek. oto bi da koo joxe ngir sëñ tubaa kon tubaarkaal la ñu ngi lay gërëm ci turu sëñ Modou Sène ak mboolem ñi nga xamante ne euh, sonn nañ ci bis bi wala ñu jël seenu ñax dugal ko ci bis bi ñu ngi leen sant di leen gërëm ak ñi newoon ci waañ wi ci njiital sëñ Cheikh maalaw ak ñim àndal ak waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne liggéey bi ñoo ko yoroon moom moom daal tubaarkaal la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla tawfeex di Serigne Touba ak tawfeex Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla na wàcc suñ kaw ci barkeb Cheikhul Khadim ginnaaw loolu nuyoo bi ak sant bi ak gërëm gi ñu ngi koy jëmale rek ci bis bu màgg bis boo xam ne dafa jar fàttali fàttaliku muy jàmbaari kan jàmbaari lislaam waaye jàmbaari seexul xadim cheikh mouhamadul amin baara ndax dafa nekk koo xamante ne ci jagleeg Serigne Touba la bokk ndax li jiitu ci jagleeg Serigne Touba rek mooy njobootu Serigne Touba gépp yàlla def nga gane àdduna ci dëkk bi nga xam ne Serigne Touba nee na moo ko gënal ci kaw suuf muy Touba Mbacke al Mahrousa ba nga fa ganee àdduna moom ci seexul xadim moo moo mi nga xam ne moo la tuddal boppam tuddalee tuddee ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko muhammadu muhammadu mooy kun sant ki ku baax ki kun tànn ki al amin mooy kun wóolu ki baara mooy kun defar mbakke mooy ku baax ki kon boo seetee tur wi mooy tur cheikh muhammadul amin baara mu tuddee ko cheikh muhammad euh, muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba pare cheikh muhammadul baara gane àdduna ci way juróom wu sell woowu nga xamee ku tedd la bu baax la bokk ci fu baax moom soxna Aminta Lo mu gore ma ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñu xam ne euh, soxna Aminta moom day ku teel a xam Serigne tubaa la ndaxte de ba mu fàggul Serigne Touba Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara booba sori na lool waaye ñaanoon na wala sàkku woon na ci Seyxul Xadim ñaari doom yi ñëpp dégg ci àdduna bi. maanaam da koo sàkk woon ci Serigne tubaa moom soxna Aminta Lo yàlla may ko doom ji mel na Serigne Touba Serigne tubaa xamal ko ne ku mel ne man fàddu na waaye danaa la danaa la ñaanal yàlla saa nga am ñaari doom yoo xam ne danañ leen dégg fépp ci àdduna bi seeni tur danañ ko dégg fépp ci àdduna bi mooy Cheikh Moustapha Al Karim ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara fi ko Serigne tubaa sa fi ko fi ko soxna si sàkkoo sori na lool mi ngi ko sàkkoo woon ci kër goo xamante ne soxna Aminta Lo fa nekkoon Cheikhul Khadim dem gane si booba. ku naan sëriñ ma jëng faaloo ca guyaar bi fa seexul xadim demee yendu fa sëriñ tubaa sàkk woon na ay yére moom seexul xadim ku ko laabal sëñ ma jëng ne ko danaa woo ci jigéen ñi ku mën a laabal say yére ñu wool ko soxna si soxna si jël yére seexul xadim laabal ko ba mu mucc ayib mu defar ko ba mucc ayib mu ñëw jox ko sëñ ma jëng faaloo sëñ ma jëng faaloo ñëw jox ko seexul xadim ba mu yendoo ba ngoon mu ne ko ana ki doon defar yére yi mu ne ko soxna Aminata loola mu ne wool ma ko mu woo ko mu ne ko loo bëgg mu ne ko damaa bëgg a am doom yàlla may ma doom ju mel ne yow mu ne ko lool fàtt na waaye danañ la ñaanal nga am ñaari doom yoo xam ne danañ leen dégg ci àdduna bi bi mu fóotee yére Cheikhul Khadim yooyee dafa jël fóotin ma nante ñetti góox jël fóotin ma ca def ko ci néegu boppam moom soxna si ngir sàkku barke ci Cheikhul Khadim te booba nekkul ci kër Sëñ Tuubaa ci la ci loolu la xamee ne soxna si gisoon na bu yàgg yàgg yàgg moom Cheikhul Khadim moom soxna Aminta Lo yàlla suñ borom def sëñ ma jëng faaloo nelaw ay loxoom ñu jële ko foofu jox ko Cheikhul Khadim moom soxna Aminta Lo ci la am Cheikh Moustapha al Karim am ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara ñaari doom yooyu moom la ko sëñ Tuubaa loon ca kër ma jëng faaloo ca Goyaar nga xam ne kon loolu fàgguteeg woy juróom wu tedd wala soxna Aminta Lo mu gore ma soxna Aminta Lo mu baax ma te Cheikh Mouhamadul Fadilu al Mbakiyu ku një ñi njëkk a gis Cheikh Baara sëñ Baara la te nangul ko ko moom sëñ Fall dafa wax ne laa laa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil ilmi wal amal aw fi juudi wal nasabi Cheikh Mouhamadul nee na laa laa yu nee na ko lef bi moom sa nekku ci lefu jamono yow Cheikh Mouhamadul Baara sa sa morom nekku ci mu ne ko fil amal fil ilmi wal amal ci xam-xam ak ak jëf aw fil juudi wal nasabi wala ci tab ak askan askan woowu mooy soxna Aminta Lo soxna Aminta Lo tafsir Maxtaar Binta mooy way juróom tafsir Maxtaar Binta moom soxna Aminta Lo setub Serigne Maxtaar Serigne Maxtaar Dieng sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar Fallo sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar maanaam mooy doom ci Serigne Maxtaar Binta moom mooy way juru soxna Aminta Lo ak Cheikhul Khadim soxna Aminta Lo way juróomu góor Serigne tafsir Maxtaar Binta lañ koy wax kon loolu dafa nekk loo xamante ne Serigne Touba fàggu woon na ko wala soxna si fàgg woon na ko. ci digganteem ak cheikhul xadim ci fóot moo xam ne laabaloon na yére ku tedd gi ginnaaw loolu bi mu ci loxo cheikhul xadim ci la cheikh moustapha feeñ bi cheikh moustapha feeñee amin baara feeñ ci waaye li ko sun borom njëkk a defalaat mooy mille trois mille trois cent neuf la cheikh mouhamadul amin baara gane àdduna ca Touba waaye ci mille neuf cent ci cent dix ci la soxna Amintaloo njëkk jël ak ruuxam lebal ko cheikhul xadim jox ko ko addiya te bi mu koy jox ak ruuxam moom soxna si ak lam defaloon soxna si ak lam defaloon cheikhul xadim ngir sàkku ñaari doomam yooyee cheikh safaa ci parental la tolloon cheikh mahamadou amin baara di nàmp fukki weer la am soxna amintaloo jël ak ruuxam sëriñ tubaa woo leen ne leen liggéey bi ma amoon ci kaw suuf mat na damay wuy ji sama borom waaye ku ma mën a demal yàlla nee na mu jël ak ruuxam man ma yeggale liggéey bi soxna si jàkkaarloog moom ne ko soxna amintaloo moom a gën ci xale yi tam moo ma gën ci xale yi ndax mën naa taxaw xele yi te man mën na maa jël sama groupe jox la ko dem ñibbi ñibbi aljana nga yeggale sab liggéey kon ñëpp ameel soxna Aminta Lo njukkal ngir moo njëkk a jébbal ak ruuxam boppam moo njëkk a boppam Cheikhul Khadim waaye moo njëkk jël ak ruuxam jébbal ko Cheikhul Khadim ngir Cheikhul Khadim àggale ab liggéeyam loolu ngir faggu eh, ñaari doomam yu baax yooyu nga xamante ne Cheikh Moustapha Karim kenn ku ne xam na ko ci lislaam kenn ku ne xam na ko ci yoonu Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara mii nga xamante ne moom la defal bis bi kon li sëñ Fall wax ne tab ak xam-xam ak ak ak maanaam ak barke aku askan kenn jotu ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara kon kooku moo siwaat ci soxna su tedd soosu nga xam ne mooy way juru Cheikh Mouhamadou Amine Baara Mbacké yàlla na nu ko yàlla fayal muy koo xamante ne nee na moom yàlla ci suñ borom moo ko jàngal moo ko jubal léppam yàlla la nee na yàllaa ko jàngal yàllaa ko jar yar yàllaa ko jubal nee na ñett yi ni def kenn defalu ko ko lépp yàllaa ko ko defal mu nekkoon saaxibu sérul masul serul masul la ko yàlla joxoon ak ak jagleem dafa jiitu ak juddoom muy liggéey boo xam ne liggéeyal na ko cheikhul xadim ci kaw suuf te kenn du ko fàtte moom cheikh mouhamadul amin baara mbakke yàlla na nu ko fayal yàlla na nu ko yàlla fayal moom moom cheikh moom lay baara te yàggal fi njobootu waa kër sëñ baara gépp kon lii dafa bokk ci cheikh Mouhamadul Amin Baar yi nga xam ne cheikh Mouhamadul Fadal wax na ko ba pare jël doomam muy cheikh Mouhamadul Amin baara mi fi nekkoon tudde ko jox ko ko muy maanaam mu tudde ko mu jël doom tudde ko cheikh Mouhamadul Amin baara ba pare jox ko ko nga xam ne sëñ baara mi fi newoon sëñ Baar lañ ko tudde moo yoroon moo ko yoroon maanaam ci këram la nekkoon ba lu ca nekk rek sëñ Baara moo ko def ci cheikh Mouhamadul Amin Baara moom cheikh Mouhamadul Fadal te mboolem sëñ waa kër sëñ yëpp noonu lañ meloon ci kaw ci. Cheikh Mouhamad Lamine Baara ndax xam li ko yàlla defaloon xam maqaama mi ko yàlla joxoon ba lépp loo xam ne lu mu bëgg la sëñ Baara yàlla da koy bëgg lu mu namm yàlla namm ko lu mu lu mu yàlla du ko faale loolu la ko yàlla defaloon mooy saahibu sirru almasun kon bis boobu nga xam ne ca la gane àdduna ca Touba ci 1890 jàpp 91 am ñu nekkoon ci Serigne Touba di mag ñoo xamante ne danoo làqoon ngërëm muy maam baabul muridina ak Serigne Dame Abdourahmane Lo mu mag ma ak ma Serigne Mas Ndumbe Mbacke ak Serigne Ibrahima Sarr Njaañ ma Massamba Diop ñii Serigne Touba di leen woo ba mu ñëw ne leen ngan gi yo gan gi àndaale na seen seen ngërëm maanaam gan gii ma gane tey àndaale na seen ngërëm man ngeen a yeweeku dem kon kooku mooy ki nga xam ne ne bi mu ganee àdduna ci la Serigne Touba yeewi ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Serigne tubaa doon fa liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Serigne tubaa ngir barke boo xam ne ak ngëneel loo xam ne Cheikh Mouhamadou Amine Baara indaale na ko eh, ci kaw jamono kon bis boobu képp koo xam ne teew nga ci wala nga def ci saw ñaq war ngaa sant yàlla bu baax a baax te xam ne def nga ko ci bisub ngërëm ak bisub cant ak bisub mbaax waaye tase nag ñuy ko jàmbaari sëñ Baara ji muy Serigne Sidi Muxtaar mi nga xam ne kenn du ko fàtte yàlla na yàlla suñu borom yokk ay leeram te taaf na ci barkeem te dëkk bii nag ameel nañ ko njukkal baax a baax di ko fàttaliku di ko ñaanal dafa bu ma fàttalikoo mooy addi ji nga xamante ne moo njëkk ci loxoom bi mu nekkalee Cheikhul Khadim ci xilaafa gi waaye moo moo mooy addi ji mujj a nangu bi mu fi bi mu fi waaj a jógee ci addi jóge bitim réew kon loolu sant la sant yàlla la addi Argentine mooy addi ji mu njëkk a nangu ci loxoom waaye bokk na ci addi ji mujj a nangu ci loxoom kon loolu liggéey bu yàlla nangu la ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di sant di di di di soññ suñu bopp di soññ mboolem julit ci liggéeyub Serigne Touba bi nga xamante ne daayira boo xam ne daayira bu tedd la daayira bu am tawfeex la daayira bu am ngëneel la ndax fa cosaan la jóge muy a Cheikh Saalihu Mbakke radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yokku leer te taaf na ci barkeem ca leeram yu màgg ya ca ñaanam gu sell ga ak barke boppam ba ak ñaan gi fi ñaanoon loola di sa di law di law di law ba si fii kon yàlla na ko yàlla fayal ci barkeb Cheikhul Khadim te yàggal fi ki nga xam ne moo ko wutu wutaay bu rafet muy Cheikh Muntaxa al Bachir ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Khadim mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Serigne Touba gépp kon daal kàddu yi nii lay gàtte ndax dafa xaw a guddi te wax dëgg yàlla am ñu war a barkeelu ci bis bi te bis bi xaw a xaw a jotaay bi programme bi xaw a xat waaye rek yéen a jin amoon daal mooy fàttalente ci jàmbaare lislaam jii ñu doon fàttaliku muy ku jar a fàttali ndax li lislaam wax rek fàttali day jëriñ ab jullit waaye fàttaliku mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ay tuyaaba la ay tawfeex la yërmande la te yërmande jooju bu wàccee ci mboolem jullit la war wàcc kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom daje ceeg tawféexi Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké waaw fi ni tëje nag ñu may na tuuti rek ñu tëje ko ci ndigal ndigal loolu nag danoo jotoon ndigal ci sëriñ Ahmadul Muxtaar ibnu Cheikh Moustapha al Karim ci sàkk gun ko sàkk woon ci moom tee woon ci kanamam ngir booloo gi nga xam ne yàlla moo ko santaane waxta waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu di lislaam di alquran sëriñ tubaa waxoon yàlla ne ko yaa rabbi ijaalil muridina maan fi xisnikal xasin wa samli ajmaa yàlla maa ngi lay ñaan nga def murid yi fu man di nekk ñu nekk benn te booloo sëtam bu baax ba bu tedd bu baax ba ak Cheikh Ahmadou Mbacké gaynde ak maam gu baax ga woote woon ne yoon wu yàllaa ngi nii wu gën a gaaw ci yóbbu ci yàlla képp ku ci aw te wàccoo ko mën na laa yóbbu ci yàlla muy daaira moom Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma wutal ko ay sart xam ngeen ne lislaam wala ci yoonu ci ci yoonu tarixa fépp fu daayira jóge rek ci xalaatu Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ci la jóge ba pare mu wutal ko ay sart muy sarti mu ne nii lañ tey doxe moom sëñ Cheikh ginnaaw bi ñu ko jaaree foofu ñu sàkk woon ci moom ne ko feede njabootu sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha dafaa nekk te daayire daayire sëñ moo sëñ waa kër sëñ Modou Moustapha ña nga fa ndax daayirab sëñ Mbacke Soxna mi ngi fi ahib bàyyil xadim ak wilaya seen jëwriñ ci sëñ Touba di Cheikh Moustapha al Karim yàlla na fi yàgg loolu te wér waaye waa kër sëñ Baara nekk fi muy waa guy mbind waa daayira sëñ Aliou nekk fi waa waa daayira sëñ Mbàkke Madina nekk fi te seen jëwriñ di Serigne Cheikh Bambali yàlla na fi yàgg lool te wér da waa daayira sëñ la Mbàkke nekk fi ak waa daayira seexi sëñ Tuubaa yëpp ak waa Daaru Njaay ñu bëggoon nga joxunu ndigal ñu taxawal benn diiwaan muy buntu këri sëñ Modou Moustapha yi nekk Argentine yëpp ñu lëkkale leen ñu nekk benn biñ ko waxee ba yeggal mu ne ma ni nga ko waxee de noonu lañ ko bëggee woon tax daje ngeen ceeg bëggu kër gi mu Cheikh Moustapha mu jox nu ci ndigal nenu su ngeen demee na ngeen ko yaatal fépp fu taalibe nekk na fexe ba tàbbi ci ndigal loolu laa taf alu say an bi xëy ni isnin fan isnu sattun fi xabuli sa ni Sëriñ tubaa nee na bu leen def dara te tegu leen ko ci ndigal ndax lu ngeen di def bu ngeen ko tegee ci ndigal day tox ñu nangu la ngeen doon jëf kon nii la la ko sëñ bi sante woon nee na bu ngeen demee képp koo xam ne taalibe bi daara xudóos la na fexe ba bokk ci mbooloo moomu ngeen xam ne yéen a nos mbooloo moom nag buñ ko nosee moo ëmb mboolem buntu kër sëñ Modou Moustapha yi kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di leen ci soññ fépp taalibe Daara Xuddoos nekk na xam ne ndigal jot na jóge na ci ki war a jóge jaar ci ñun ngir ñu bennoo lépp teg ko ci l'islam ngir taxawal fédération Cheikh Moustapha Al Karim fii ci Touba Argentine addi ji nag joxoon nañ ko ko ren jii nag la fédération bi juddu ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom ñu daje ceeg ngërëmul Seexul Xadim te lépp luñ ci sàkku yàlla suñ borom defal nu ko ci barkeb Cheikhul Khadim ñoo ngi jaajëfal mboolem jëwri ñi nga xamante ñoo nekk ci fédération bi moo xam waa kër sëñ Moustapha Karim la moo xam waa kër sëñ Mbàkke Madina la moo xam waa kër sëñ la Mbàkke la te seen jëwri nekk fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi di soñ suñ bopp xam naa ne bu liy jàllee danañ woote ensemble boo xam ne ñun ñëpp danañ teewaat ñu xoolaat ko gën cee waxtaanaat gën koo yaatal di sàkku ci sëriñ bii muy sëriñ Cheikh mooy kilifa jotaay bi waaye mooy kilifa Daaru Xudoos fii ci tubaa Argentine moom it mu ànd mu so gën cee soññee ànd ak ñun ci soññee ba fépp foo xamante ne euh, waa njabootu sëñ Modou Moussa ma nga fa ñu ànd fa ak moom waxtaan ak ñoom ngir ñu dugg ci ndigal li ndax ndigal li kat ndigalul seriñ bi la te sëñ bi lu mu digal dañ ko war a def ndax bu buñ ko defee rek mooy ndigalul sëriñ Touba mooy ndigalul Cheikh Moustapha mooy ndigalul Cheikhul Khadim kon Cheikh Abdou Aziz sëñ sëñ Cheikh Mati lay ñoo ngi lay nuyu baax di la ziyaara di ñaan yàlla suñu borom nga yàgg taxawee bis bi ñu yàgg ànd ak yow ci barkeeb sa maam sa wayjur Cheikh Abdoul Aziz ci barkeeb sa maam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ay ati at ñu ah, yàgg koo ànd ak yow ci barkeeb Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu